histoire saajo ak Paate saajo mooy mag bi Paate mooy rakk bi naka jëkk dañaa nekk ñoo xam ne mos ñoo bo saajo du dañ di diggal kii nga xam ne mooy Paate yoonu yoonu dégg yoonu mbaax waaye Paate mosu koo nangul loolu bari na lu ñuy wuute ba léeg sax ñu xeex seen diggante benn bis nag kii di saajo mu am nattu ñu jàpp ko tëj ko waa këru paate nag dañaa yéemu si paate la moo tax ndax dañaa gis paate di xataraayu di jooy di yuuxu te xam nañ ne naka jekk ñoom ñaar mus ñoo juboo mus ñoo nekk ay xarit melukaan boobu moom mooy melukaan yu bari si jullit ñi ak téere borom bi subhaanahu wa taala mus ñoo dégg ndigalu qur'an musu ñoo bàyyi tere qur'an qur'an musu leen xalal yoon ba ñu topp ko waaye suñu demee ba làkk ko nag ay yéefar lakk ko waaw ñu tambale di jooy di métitlu di naqarlu te ñoom sa yoon nekkul si Qur'an Qur'an moo ngi si seen kër ànd ak ñoom guddi ak bëccëg suba ak ngoon mais sa yoon nekkul ci moom yéefar boo xam ne warul laal Qur'an bi su demee ba làkk téere borom bi subhanahu wa taala ñu nekk di xataraayu di jooy di yuuxu te ñoom seen téere seen mushaf moo ngi si seen kër duñ ko jege duñ ko laal sa yoon nekkul ci ay digleem sa yoon nekkul si ay teram ndax lii mooy euh, taxaw téere borom subhaanahu wa lii mooy bëgg téere borom subhaanahu wa nii la ñuy défendre téere boromi subhaanahu wa taala déedéet borom subhaanahu wa taala dafa wàccee téere bi ngir ñu topp ko ngir ñu jaamu ko moom borom subhaanahu wa ñu topp ay digle Qur'an bàyyi ay teram